xalaas cay Sénégal 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem ku topp Fall 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi am da leen ko defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ la siyaar nañ leen ñi siyaare mboolem képp koo xam rek yaa ngi topp seen bi rawatina waaja diaspora bi nuy nañ leen siyaar nañ leen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax booy leen di abonné rek di partager di sam di commentaire gis nañ sondage bi nag Sénégal moo jiitu France topp ci. Italie topp ci euh, Espagne topp ci euh, réew Afrique yi nag euh, Sénégal moo nekk ci kaw Afrique nag daa mel ne daal nekkoon na ci suuf mais voilà mais noonu la sondage bi moom chaque jour day yéeg mais Sénégalais yi jiitu woy leen rek di abonné di partager di cham di commentaire voilà xam naa ne nag Kouthia bi nag euh, wax dëgg yàlla nag fi mu toll nii euh, site internet yëpp a ngi koy reprendre reprendre euh, influenceurs yi tamit ñu ci commencé wax mu nekk loo xam daal vraiment fi mu toll nii dafay mel ni aaxuru chaman nag lañ nekk nag ndax révélation yi Ousmane Kouthia révélé muy ay révélation yu doy waar yoo xam ne da koo jëmale ci ay nit nit ñoo xam ne ni am nañ image fii ci Sénégal nit ñoo xam ne ràññee nañ leen fii ci Sénégal voilà mais nag milieu bii ñu ne milieu bii nag moom day milieu boo xam ne daanaka ku fa nekk rek daanaka tuuma moom du teggiku sa kaw voilà tuuma la wala tuuma nag milieu bi daal moo nekk milieu boo xam ne nii pour ñu teg la tuuma moom lu yomb la voilà ñu koy tegaateeg ñi koy tegak ñoo ñëpp wala kon daal euh, yaakaar naa ne fi mu toll ni kenn ku nekk bay boo nga fagaru voilà comme wax dëgg yàlla saari audio yi duñ ne guleet tey amoon na fi ay kilifa am na kilifa goo xam ne fii ay audio fii lañ ko saawoon ak yu baree bari yoo xam ne ak yu vidéo mag yu kenn xamul voilà voilà kon nga gis ne ba léegi rek euh, nit ñi ba léegi ni ñuy jëfandikoo internet nekk na loo xam ne daal euh, lu doy waar la kan nan la nit ñi war a def kenn ku ci nekk am sa fulla ak sa fayda voilà di bloquer say euh, audio ak say vidéo voilà parce que tamit euh, dafa metti daal euh, nga nekk ki nga nekk doon ki nga doon euh, ak fi nga jaar fépp ak li nga wane ñu ñëw teg tuuma sa kaw voilà te xam nga xel moom yaa ma gën a xam ak fii jamono bu tool léegi nit ñi dañuy analyse seen xel diwkat lii la ah diwkat ndekete kon moom lim nekk ci télé bi wala lim nekk ci yëpp ndekete lii la voilà tuuma lañ teg sa kaw moo ne yàlla rek a xam de voilà kenn amagul ay preuve voilà voilà lu xam nga sénégalais moom daanaka yaa ma gën a xam dégg naa dégg naa rek voilà ñoom dañ koo man lool c'est parce que nag